alors euh, mi ngi noonu rubrique mœurs si la ñuy euh, dugg nii comme ni ñu ko annoncé euh, sànq bi ñuy door tey jii négligence médicale la ñuy fas yéene wéyal di ko waxtaanee ñu daal di fi dalal xayri indi fi koo xamante ni moom jot na dund métit yu ni mel la ci benn hôpital de la place xam naa ci biir waxtaan bi dinañu wax ban hôpital la dundee lu ni mel dañ koy dalal rek ñu nuy ko bàyyi ko mu nuyonteex mbokk yi téléspectateurs yi. waaw salaamaaleykum hmm. maa ngi dañu ñaan ñëpp jàmm di wax di ñaana waa Sénégal di wax at mi bés mu dugg ñaan dugg bisimilah rahmaani rahiim gis alhamdulilah di wax ni man soo gisee ma ñëw thème bi ngeen dafa am solo. Mhm. ndax man depuis 2009 ba na opéré. Mhm. bu ma opéré hôpital bi. lakk sama tànk waxuma sa lakk sama tànk. mais xam naa xam naa lool lool noonu sax dinañ ci ñëw. nga expliquer ñu li li li waral lu ni mel la moom mi di euh, Ami Ami Seck. Mm. parce que moom nga fi indi woon la fois passée ci euh, reportage boobu image yooyu. Mm. moom la ñu daal di yàqoon tànkam ni ñu ko doon gisee ci image yooyu la mm. fois passée. Mm-hmm. dañ lay bàyyi xay rek nga daal di waxtaan ak moom. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw euh, Fatka moom Ami Seck la tudd. Euh, nekk victime nag ci benn opération bi ma def muy fibrom bi euh, macha allah xam naa bu fekkente ni xëy na Charles ñëwaat na ci image pour nit ñi gis ko. Euh, dina baax bu fekkente ne amuñu image yi tamit moom mi ngi nii toog li ñu wax nekk li ci gémmuñu borom la dàqe mu nekkoon ci benn hôpital doon fa dindi fibrom ba jëlee fa ay tànk ay voilà gis nga moo ngi noonu gis nga. moom la ñuy gis nii ci image moo nekk nii toog euh, macha allah nga gis ni chevilem yi dafa yàqu mhm. ci koo xam ni yow da nga nekkoon commerçante mhm. di daan sa doole mhm. yor sa njaboot dem hôpital di fa dindi benn jàngoro boo xam ne tey jàngoro bi mu la fa jural moo gën a moo gën a metti yow bi nga am parce que yaa cela dix ans parce que 2009 la defoon opération ba 2020 yaa cela dix ans yoo xam ne mënul dox mënul liggéey mënul def dara ci erreur boo xam boo xam ne la erreur médicale euh, si hôpital Abbas Ndao Abbas Ndao Abbas Ndao Euh, mu mel ni lii yow sa ay tànk la. waaw li man la natt bu sama kaw la dal. Mhm. ndax dama demoon di opéré léegi bi ma yeewoo laas naan sama tànk bi di di ruux di metti daal. Mhm. léegi sama doom mën ne ko am temps man ko man sama tànk mi ngi tàng mu ne ma tàng ndax xaaral dem bolo ñu leen ah yéen sama yaay nee na tànk bi mi ngi tàng ñu nekk dafa lakk. Mhm. plat bi moo ko lakk yi tànkoo ko tege woon. moo lakk tànk mu ne leen lakk. mu ñoo ko waaw toujours boobu noonu du man kese lakk. ku génn bolo lakk na sa. lakk nga. ñu bëri ay victime lañu te xam naa ni am na ñu bëri ñu mel ni man. ñu nekk ci kër yi di souffrir comme man ni ma nekkee. 10 ans. ma yor sama tànk bi dem sama propre moyen. aw ma benn suivi hôpital. sonn fu ne laa dem bu du sax ay mbokk yu baax. ñu may jàppale sax mu gën a métti si man. waaye may sant yàlla nga xam ni lii ma dal nii nattu la xam naa mais tamit heure médicale bu ñëwee. dafa war a am suivi. hôpital dañu war a xam ni ñun ñii ni mu dal ñun ñii. ñu metti na 10 ans nga yore tànk. léegi yow lii bi mu la dalee après ñoom jël nañ la en charge di la faj wala yow yaa jëloon say propre moyen pour faj sa bopp. non jël en charge hôpital booy ñëw loolu ñëw di faju mais yaa jël sa complexe. Mhm. jël sa bande li ngay fajoo yëpp yaa koy jënd. boo ñëwaatee da nga dagg ticket. da ngay dama doon dagg ticket. Mhm. di ñëw sama propre moyen laa doon def. Mhm. te taxe laa doon jël xoolal chaque jour su may ñëw 5000 francs laay fay taxe. ay béykat sax laa yore woon léegi tane na. mënoo woon dara xoolal. waxuma sax lakk mais optable daf ma def handicapé la mm-hmm. parce que tama talon chevelu xam nga tëstal maanaam mm-hmm. amatuma ko mm-hmm. damay soox kon nag handicapé la daf ma lakk pa yóbbu defaat ma handicapé te fekk yow ba nga fay dugg dara jotuma dama doon opéré sama biir rek laa doon opéré waaw ñu ñëw lakk indil ma tànk ba man non tu vois fibrome lan la lakk lan la ci lakk amee. opéré fibrome plateau yi ñu tegoon plateau yi fi ñuy tëdd bu ñu leen di. opéré seen tànk fi muy féetee. fi muy tegu foofu waaw fi muy tegu. foofu xam naa moo am problème mu tàng ba tax mu lakk ay tànkam ak ñeneen ñoo xam ne jour boobu opéré nañ leen ak. ci bés boobu ku génn bloc da nga lakk nga. Mm-hmm. du man kese de. Mm-hmm. bari na ci xam naa ñu mel ni man suufu ci biir kër yi. Mm-hmm. yooyu la ma yore. bari na torop du man kese de koroog ñëpp la ku dugg waa xam na ne plate bi moo ñu lakk xam nañ ko bu ñu génnee dañuy wax ni docteur bi ñoo ni plate plateau yi ñoo tàng. Mm-hmm. am na ñoo xam seen tànk yi ñi seen digg ginnaaw. Mm-hmm. man moom ñu ne sama la troisième degré la. li ma gën a mes sax dafa dugg ba si biir ñu ne. Mm-hmm. sama tànk da ko doon lel di ko lel di ko lel ba. te seen ba mu jeex. loolu moo ma yóbbu handicapé bi sax may soog parce que handicapé laa. mëntu ma dox mënu ma daw jul damay toog. 10 ans de souffrance. hôpital def ma ko ba léegi. zéro porté woo plainte defoo dara. muy ku may porté plainte hôpital état la. ku mu état ñu doon porté plainte ñoom seen dossier dañ ko classé. mujjul fenn ah amoon nañu porté plainte. waaw ah mais. dossier classé ñu koy def. Mhm. du amul benn chiffre boo dem sa avocat duñu la faale dañ la doon naan la tey suba ëllëg ñëwal fii ñëwal faa. Mhm. da nga mujjee découragé nga toog gëm yàlla. Mhm. mais jot na nag ministre de la santé bii. fi nekk xam nga boobu jamono Abdoulaye Wade la woon. mais régime bi bees fi nekk xam nga Macky Sall lañ. ñu am yaakaar ñoo te xam naa am na ñu mel ni man. nekk si kër ñun ñëpp dañoo war a génn. dañoo war a génn ñu gis ñu parce que ñun ñu ngi supprimer 10 may la tànk. parce que il paraît que bi ma bëggee gis sa tànk bi da nga ni ba tey dafa nekk góom. bi ba tey ma ko dama ko bànd. wérul ba léegi yàlla xam na ak ñi ma dëkkal tànk baa ngi nii wérul damaa fajoo faju ba sonn. ma jeexal tànk tànk bi dafa ma fa yàq sama àdduna. lépp dama jeexal tànk fu ne laa dem. lu ma am jeex na tànk bi dama mujj sax bàyyi ko noonu. ndax dama sonn amatuma benn moyen pour faju fu ne laa dem fu ne fu ne nekk loo xam ne dëgg la ngeen waxtaan lii dëgg bu wér pëng tey gis nga nii yéen yàlla dina leen fay ci li ngeen def mhm. lii dafa am solo mais yow après bi lool bi la lool dalee yow dem nga ba ci médecin mu xam ne moom erreur bi moom moo ko def waaye soxna si wax naa nee naa la ñoom xam nañ ñooñu lakk mhm. doogal man du man doon ju boobu mhm. ñu bëree lakk reconnaître ñoom kon ñoom c'est ça c'est ça loolu mooy sans problème comme que moom dañ ko opéré ñu ne plateau bi moo tàng ba ba mu lakk ko lakkaale ñeneen ñu ñu reconnaître que ne erreur bi si ñoom la léegi man kañ sama problème mooy comme que ñoom reconnaître nañ erreur bi si ñoom la mhm. pourquoi à chaque fois suy dem di faju ji non seulement dafay jënd ticket li nga xamante mooy compresse bi ñu koy defal moom moo koy jënd médicament yi ñu koy bindal moom moo koy jënd foofu prise en charge dafa da dafa dafa dafa waroon a am wax na sànq xam nga wax na ne du moom nekk ñu ñu bëri lañ woon waaye dafa mel ni fu mu ne nii xeex bi yow kese yaa ci yaa ci nekk ñeneen ñi ñoom aniñu waaw moo tax damaa bëgg ñu mel ni man mm-hmm. nit ki ñu génn mm-hmm. ñu ñëw comme man comme courage ma am pour ñëw wane sama bopp nëbb du ma de parce que li ma dal du gàcce ñëw fii du gàcce de ñëw dama ñëw pour wane sama bopp wane ne xam ne ñu am na ñu mel ni man na ñëpp génn ñu ñëw àndandoo ñu xeex li parce que association sax am na ma ne ma dem bokk association handicapé parce que damay soox waaw su ma neexee ma xool ni rek lii war naa mën a nekk ñu ñëw ñu ànd ñu gis ñu uhuh. parce que boobu noonu régime Abdoulaye Wade la woon léegi nag Macky Sall ah dañu am si moom yaakaar ñëw ministre de la santé bi ñu ngi ko pour mu xam ni ñun am nañu mel ni man nekk si kër yi souffrir mu ñëw ñu gaaw ñu dimbaliñ parce que sonn nañu soutien de famille la woon ah. di liggéey mëntuma da lii sax damay ko foofu sax laa bëgg ñëw ndax xayri sànq mu ngi wax que nga woon dama doon jaay ñu may dégg xam ma léegi wala wala da nga mujj arrêté tànk mooy li ma yoroon ni ku mënul daw nooy mën a dox dox su ma defee tuuti damay sonn. Mhm. ma dara. Mhm. damay mujj toog rek du xoole. Mhm. sa liggéey wér mooy liggéey te amatuma wér boobu xoole lii 10 ans. tànk bi moo ko teg tekkoon léegi nga doon la ko nga xam bii wérul nii. nga bu mu doog mënoon naa ko dindi sax damaa rek bañ ko mais su ma ko dindi woon tey jii. traité bu muy bu mu leen njëkk a dal. waaw ñaata at ci ban durée lañ la traité ñaata euh, ñaata kii lañ la topp. Mm-hmm. naa ay semaine lañ la traité wala de un mois naka lañ la ko neferee. hop là parce que faju naa fa un an. Mm-hmm. gisuma dara wéru. Mm-hmm. ci laa obligé leen comme dama déplacement dafa métti yóbbu leen ma hôpital Camp ba léegi ma doon dem si hôpital kamba ba dafa ji foofu am na sama benn fa nekk soxna ju maa ngi koy gërëm parce que sonn na trop ma jàppale ci ci ordonnance. di ma jàppale ci métit bi di jox paas am na boo xam ne dama doon dox gis nga ambulance bu doon yóbbu indi nit ki moo ma dugal may dox ma ne ma meer ñu gaa ni ma ñëwal dugg hmm. ñëwal dugg yoo xanaa amoo paas ma leen di damay nar dox ba si binti jël karab ma dugal kon ambulance ñoo ma yóbbu bi may wàcc nga ñëw tiit ni mu ambulance lu ñu fay def ma leen ambulance daf ma gis sa yërëm ma may dox mu dugal ma hmm. te pourtant ah hôpital bi ma nekkoon di doon fa dem am am na cas social social amoon na fa hmm. mais doon naa fa dem ci ma dem boobu yore woon social bi mhm. ma demee moom doon na recevoir na benn yoon ñaar yoon mais ma desee dañ ma toroxal soo ma demee si hôpital boobu noonu gardien bi di gis docteur moo waxoon yow ma ñëw gardien bi daf ma fuut doole ma ba ma ban hôpital Abbas Ndao ma demee di gis pour gis docteur ba gardien bi moo ma dàq génn ma si biti te pourtant ñoo ma teg loolu am naa droit ñu docteur bi yow gis ko pour wax ko li ma dal dafa métti. te lii du erreur sax xam nga lii du erreur négligence la. négligence balaa ngay dugg ci bloc euh, bloc ñoom war nañoo vérifier euh, matériel ah, yi ñuy utiliser. c'est pas normal plateau bi ñuy teg euh, tànk. Mhm. plateau bi di tàng noonu dafa ah, chauffé. à ce tàng à ce point que mu mun a lakk kii. Mhm. moom tànk ko dal mais imagine toi kooku ndiggam li lakk. du erreur négligence la. ñeneen ñu hmm. bëri ñoo am na ñoo xam ne seen dëggam la seen digg ginnaaw lakk am na ñoo xam ne na koo xam ne moom tànkam est te fekkee mi ngi may dégg na réagir parce que kooku tànkam bi dafa métti bi fi fii lakk boo xam ne xale bu jigéen bu ndaw la ñu lakk mm-hmm. tànkam bi noonu man mi tamit noonu koroog man la ko ëppee lakk na la mm-hmm. mais nag comme erreur médicale la uh-huh. te xam nga nattu day deel jaam lay dal mun dara comme nee na erreur médicale la ñu wax mais su erreur amee pare wax dëgg yàlla war nañu jàppale nit ñooñ loolu dal di leen nemmeeku ñun war nañ toog sax du yàgg ñu woo ñu allo mbaa yéen a ngi tànn pourtant am na suñuy numéro mais zéro mu déggatuñu leen sax dune boobu demee dañ leen maltraité xam nga leen moo ci xam nga lan gën a garaaw mooy euh, cas social yooyu ñuy wax fatka mm. gis nga cas social balaa nga ci jot boo xifee nga dee mm. parce que enquête ya muy laaj rek turu cas social rek la dinañ ñëw fa nga dëkk dinañ la laaj est ce am nga ay moyens yu la war a faj est ce am nga doom bu la mën a faj est ce mag nga am nga mag bu la mën a faj mm. mais loolu du raison boo xam ne ñoom day tax ñu war laa mën a jàpp ñu war laa mën a dimbale surtout lii nga xamante ne ñoom ñoo ko war a jël en man damay wax ni ñi nga xam ne dañu leen a ne ñoom dañuy nekk ci ci ci hôpital bi nga xam ne dañu leen jox seen logement et tout pour ñu surveiller li nga xam ne noonu la hôpital bi doxee comme ni mm-hmm. nga xam ne ñoom ñooy hôpital bi mm-hmm. du yoon balaa muy egg sax ci ministre de de la santé mm-hmm. lii ñoom dañ ci war a taxaw te moom ni ma ko waxee ni mille cas ñi ngi ci te am na ko ma ni bloc opératoire dem ba commencé ba pare machine yi euh, sauté yenn yi dafay am masse genre problème yu nekk yu nekk yu nekk malaat yi ngi koy dund mhm. finalement yow boo feebaree sax naan mhm. xaaral ma toog dee sama kër daf may gën a yomb nga dem hôpital parce que mhm. da nga fay dem non seulement dañ la faj mais dañ lay indilaat beneen cas bu gën a critique beneen cas bu gën a garaaw xam nga ne opération bii mu def nii

Mm-hmm. dañu war a jógaan nag te dimbali malade yi parce que niñ leen di traité ci hôpital yi métti na fat ka da wax ak mag sax mun la balaa may dem hôpital ñu may rey ma toog benn yoon parce que dama ñu may jekkal ñu bëri loolu la wax te li nga mm-hmm. wax rek dafa am solo moom ni mu def nii Assane def ko Assane mooy seex euh, kooku nga xam ne seexam dañ ko négligé ba mu génn àdduna mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi dund li ñoom ñëpp nañ euh, nit ñoo ko mën a xeex Aliou Sow xam naa ne fu mu euh, wax ci li mais xam naa ne daal am na kàddu yoo ci war a sànni ci non c'est c'est que c'est que en fait fii mënoo fi toog 24 heures man man suma toog 24 heures Sénégal mhm. euh, sama xool di feex en fait nga toog 24 heures ko mhm. benn 8 heures du matin ba 8 heures le lendemain. Mhm. Euh, nga yeewu amuloo lu la naqari. te loolu xaw xaw ma lan moo tax. kii nii kii dañ ko war a dédommager. kii dañ ko tooñ hôpital. ay moromam dañ leen war a fay tooñ bi ñu leen tooñ. ñu xool leen ndaw si mais ñii amuñu yërmande mais gis ngeen tànk bi nit ku ko amee ne nee na sama sama àdduna yàqu na. moom nee na àddunaam yàqu na. Ah, waaw wax nga dëgg ku tànkam mel nii xamoo ban njëriñ ngay am ci àdduna mais dafa am ñu ko tooñ. ñu war koo fay bor bi faj ko du faj kese lañ ko war a def dañ ko war a faj ba pare dédommager ko dédommager ko bien sûr mhm. mais il faut ñu bàyyi ax il faut ñu bàyyi di ak bu fekkee ni dañu bëgg dañu bëgg réussir gis nga yàlla mhm. yàlla ñëpp la fi nekkal mhm. te Dieu est juste mënu leen tooñ ay doomu jàmbur ba pare bàyyi leen nii depuis fukki at nee na dañ ko toroxal fukki at ngeen bàyyi kii nii mu mel ni ak ay moroomam te Aliou Sow man li ma si li ma li ma si metti mooy wóor na ma ne équipe médicale boobu defoon erreur bi ñu ngi continuer di exercer ba tey mais mais mais xam nga ñu ngi exercer ba tey xam nga kii Khadija man man man man honnêtement man man des fois damay ñàkk kàttan des fois damay yaakaar ni am naa doole pour xeex injustice yi mais des fois du ma am doole xool leen doomu jàmbur ji est-ce que gis ngeen tànk bi yéen yéen ñi ku ko si amoon seen doom yi ci seen kër yi. nan nga war a dund kii ñaata la ci ordonnance depuis fukki at kii ñaata la ci ay faju kii ñaata la ci ay dundal njabootam li mu daan liggéey da doon liggéey parce que parce que pour njëriñu ay la mënatu ko kii ay yaa ngi imaginer ci fukki at yi kii ñaata manquement la am ñaata mbir la daan lijjanti mënatu ko lijjanti depuis fukki at ah. mu desee ko lii ci adam mu war a dundaat ay ati ati at moom doomu jàmbur bi moom nee na àddunaam moom nee na àddunaam tukki na mm-hmm. moom nee na c'est fini quoi waaw léegi yéen yaa leen ko teg lii ngeen ne yéen doo leen ko faj ana Abdoulaye Diouf Sarr mais vous êtes au courant de quoi vous quand vous avez vos dossiers mm-hmm. est-ce que vous travaillez sur les dossiers importants mm-hmm. je, je, je ne peux pas comprendre je suis je suis fatigué mm-hmm. je suis fatigué oh on va tenir on va essayer de tenir le coup mais ça fait très mal kii ak ay moroom ñoo xam ne gisuñu leen parce que fii ñëpp mënuñu fi ñëw kii nii ngeen koy bàyyi damay ñaan yàlla damay ñaan euh, bon Abdoulaye Diouf Sarr yow yéen dama leen bërgal parce que man yaakamtuma loolu ngeen dégagé ndax euh, il faut il faut il faut il faut ñu liggéey il faut yeneen façon fay faire yii nii yii nit waru ko bàyyi lii lii man du ma ko bàyyi du ma ko bàyyi semaine ba semaine bi dellu si waat du ma ko seetaan man du ma am ay responsabilité ñëw ci du ci ministère am ay dossiers urgents taxaw alors ne me dites pas que y en a 36 de dossiers ça c' est des que il s'agit d'une da ngay dund nga dee nga dem àjjana nga dem dund na dafa war a dund normalement di ñafe laay fam ngeen teg ko lii mm-hmm. ak ñeneen ñoo xam ne gisu leen di nii lañ koy bàyyi mm-hmm. man nag amul problème coow du jib quoi depuis nguuru Ablaye Wade la nee naa leen ce sont les mêmes régimes ce sont les mêmes comportements les mêmes attitudes chaque jour ma leen même jikko yi la même doxalin yi la yii rek a feeñ mais am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd di souffrir di sonn ku nekk ak sa façon nag ku nekk ak say mbir ak sa jàngoro ak sa coono ak say problème mu àdduna même régime la depuis régime Abdoulaye Wade la ne mhm. avant régime Abdoulaye Wade il s'est mhm. passé beaucoup de choses et il va continuer encore à se passer des choses dans ce pays il faut nee naa leen comportement yi la ñoo changé mhm. jikko yi doxalin bi doxalin bi ak yi ak ak tooñ tooñ baaxul da ngeen tooñ ay nit di tooñ ay doomu jàmbur ba pare di leen seetaan di continuer yéen di yaataa yumbe di dund seen dund yéen tranquillement normalement di dem ay seen i di def lu leen neex di dund weer bu dee ñu jox leen ay salaire ngeen tranquille seen doom yi di jàngi waaye kii est-ce xam ngeen li muy dund kii est-ce que xam ngeen ana njabootam ana ay doomam ana mbase kii li bi daan liggéey dafa am lu taxoon muy liggéey mënatu ko mm-hmm. gis ngeen li ngeen gis nii ci image yi nii ci tànk tànk tànk bu mel ni c'est c'est un truc de ma mm-hmm. léegi Mbaneem Faye man ci dëkk bi laa dëkk te damay renseigné wu damay gëstu mm-hmm. ndax intellectuel laa jusqu'à quel niveau xaw ma ko waaye xam naa ni man intellectuel damay xalaat man dama lay ñaan ngir yàlla war a suuli am na loo xam ne nag man dama ko dégg ci yow te bu fekkee ni li dégguma ko ci yow li may wut ci àdduna yàlla bu ma ko yàlla may man maa dégg ci yow ni yow yow loo wax danga koy def man nii maa dégg loolu ci yow te ci lu wéer laa ko déggee te nee naa la man damay renseigné mm-hmm. damay gëstu xamuma la waaye dama ne li ma dégg ci yow lu rafet la ci loo wax da nga koy def ma yokk sax wax bi parce que du ne du du dara nettali la rek. Mm-hmm. du kàcc yow sa jëkkër li ma li ñuy wax ci yow nii ci loo wax da nga koy def du loolu la ñuy waxal sa jëkkër man maa la wax loolu te loolu maa ko dégg te fu wér laa ko dégg mm-hmm. dégg naa dangay wax. di def te loo wax di ko def xam naa sax ni nga xale woo ni nga yëwee woon ni nga daan muuru amoon comportement kilifa du ma wax tur bi nag su ma waxoon tur bi léegi nga ne ma nga ne ma gongo su ma waxoon bi ki ma ko wax nga ne ma gongo waaye nag dama lay ñaan ngir yàlla sa jëkkër ñu ko waxal li ñu lay waxal yow amaana mooy président la république xëy nag politique bee tax waaye loolu ñu ko waatal sa jëkkër pourtant dañ la koy waatal yow te lu leer laa la wax yow soxna si Faye Sall dama lay ñaan ngir yàlla war suuli nga dimbalil ma ñii seet ñi jéem ko seet ak ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu fi sax te ñi ngi seetaan am les mêmes difficultés nga jàppale leen ci sa fondation boobu defal loolu yàlla fay la xale nga bërki démb nga juddu mm-hmm. mm-hmm. doo mag lu bari dese na la mm-hmm. te am nga njaboot am nga njaboot yàlla jiital na la ñu ne la yow yaay première dame du Sénégal yàlla nga gudd fan mais jàppalee leen jàppalee ndaw si woo ko ngir yàlla war a suul en tout cas il est social te nga dimbali ko dimbali ñeneen ñi mhm. ñi nga xam ne gisuñu leen mhm. ñu leen di wër ñi ngay wëral di liggéeyal ndoog fondation bi mhm. ñuy seet ñi di bàyyi xel ci ñoom def ko soxna si suñu xol dina ci sedd torop ah man de sama xol dina ci sedd euh, gis nga Fatou euh, bi ko Charles jàllale mm-hmm. ñu bari ñi nga xam ne réclamé nañ sax ñoom dañoo dañuy wax ñoo xamante ne ñoom sax nekkatuñ fi mm-hmm. ñenn ñi dañ leen doon opéré fa lañ joxee a àddina mm-hmm. parce que xam nga bu fekkente ni da nga ni da nga dem bloc opératoire ñu dem ba lay ñu ne la machine dafa paan wala dafa ne am masse wala leneen ak leneen ñenn ñi di di di yoo xamante ni comme ni erreur yi nga xam ne dañ ko def ci tànk nit nga dagg fi nga dagg eggu da ko encore te muy dund mu nekk ay erreur yoo xam ne set nii donc ñi dee dee nañ mais Sénégal li ñuy wax mooy euh, ku dee dee nga nañ xam dogalu yàlla nangam nangam bàyyi mu jàll négociation bi moo war a jeex mm-hmm. nit ñi dañoo war a jóg di réclamer li nga xam ne mooy seen i droit mm-hmm. parce ne dafa am loo xam ne boo nekkee ci dëkk te sañoo ko fajal sa mm-hmm. ñun la yoon moo la tëkk ak ay loi ak ay droit am na lu nga xamante ni bu la dalee da dem fa yoon nekk benn même yow defal li a def mais nag ñu ci bari dañuy dañuy découragé parce que yu mel ni moo tax boo boo eggee même justice ñi la war a atte ñoom ñoo la a moo leen dal hôpital da nga naan déedéet mhm. mhm. mhm. di la maltraité duñ la ñoom ñoo lay wax na parce que fii mu dem dafa faju man dem naa yóbbu fa malaat mais dañ lay ñàkk kersa goo xamee sit nii ak boole koog nag di la laaj comme ni mu waxee boo ñëwee te benn compresse bi gën a ndaw duñ la xaj boole koog dagg loolu ticket mm-hmm. transport aller retour yow li nga war na lekk li nga war na dundal sa njaboot yëpp day yamaat yoonu hôpital mm-hmm. mu nekk lu nga xamee si daal fàtka mm-hmm. dafa loo xamante nii lu dafa metti la des ah, milliers et des milliers de cas ñoo fi am fii nii ci biir na benn waay ma wooye uh-huh. ku nekk daal yaa la kenn ku ne Sénégal foo dem am na koo xamante mu ngi toog di dund li nga xamante uh-huh. moom la soxna si dund Aliou Sow dafa interpellé léegi nii ki nga xamante mooy uh, première uh, dame Mariam Faye Sall uh-huh. waaye man itam dama fay jaar interpellé uh, daal di ko woo rek moom mu dugal ci loxoom jàpp si bu baax parce que dañ koy gis que mi ngi jàppale ay doomi aadama fii nii ci Sénégal Balago Seck parce que moom mii nii bàjjenu waali la mm-hmm. du moom moo ñu ko wax mais euh, nit ñëw na ne ma ki ngeen euh, message nañ ma léegi ne ma euh, ki nga toog noonu ci plateau bi bàjjenu waali la parce que papam ak nga xamante mu ju coon aussi ñoo bokk ñoo bokk ndey baay suñu mm-hmm. juumulee loolu ma mm-hmm. expliqué donc li nga xamante moom ma waali Balago mu ngi koy def ci dëkk bi di ay acte yoo xamante ni social la di jàppale ay doomu aadama ñu ngi koy ñaan rek mu daal di ko defal ci moom soxna si parce que amaana sax woon ñu wax ko ndax bëggu koo feeñu koy ñu wax ko ndax mu ngi koy defal ñeneen te bu ko ko defalee moom mii nii yaakaar naa ne ci lay gën a safe waali seek ñu ngi lay dafa am solo mm-hmm. parce que léegi-léegi sax mbaax mm-hmm. euh, léegi-léegi te xëy na peut-être xamoo mm-hmm. moom mi ngi koy def te diwal ñi nii def nii nangam nangam te xamu ko donc kon li nekk na lu am solo olof Njaay nag nee na euh, nit baax na nag boo ko wax dañuy laaj ndax mbokk yaakaar naa ne waali li muy def si jàmbur yi bu gisee mbokkam mel nii euh, j'espère waaye papaam. Mhm. coon mhm. Cheikh Seck ko jur. Mhm. Cheikh Seck moom Abdoulaye Seck njaareem moo ko jur bokk sama maam ma saa su benn baay. waaye bàjjanam laa coon moom xam na waaw loolu bokk. mais bi nga feebaree léegi est-ce que ñëw waaye nag xaw ma ko. dëgg yàlla miinu ma waale moom. dëgg musuma dem këram xaw ma ko. instant bi am nga borom kër. waa am naa. am naa borom kër. mu ngi liggéey. waaw moom mu fi. lii métti na lii tamit nga di ko dund vraiment dafa métti ay tànk yoo xam ni dafa def góom ah Fatou Kane ngay traité wu 10 ans mënul fexe ba tane. vraiment metti na metti na trop. dafa metti na waaw mënuñu woon a tànk bi. waaw waaw hmm? Charles kañ sànq ba tey. Ah, mu ngi koy mu ngi koy dugal mais am na nii nii tànk bu yomb dañ ko dafa def kawas. sànq ci say wax yaa ngi naan ah. booy julli da ngay toog. waaw mënuma. mënuma taxaw bu baax amul équilibre fu mu taxaw mënuma taxaw parce que tànk bi xam nga. talon boobu maanaam talon cheville. talon cheville waaw tës la amatul. c'est vrai tës ah, taxaw. te ñoom seen fan la de Aliou Sow ñoom ñoo ko doon def di ko di ko di ko def noonu et puis bu ñëwee ñu koy maltraité foofu noonu ci salle bi yaa ngi dégg buñ koy faj muy yuuxu ñaan ko ay noppi rek di ko def ay affaire ñàkk kersa yoo xam ne man vraiment man dama yaakaar hôpital daal li fa nekk yaakaar naa mag ñi dañ ko yëgul xam nga li ma wax ne am na ñu nga xam ne euh, xëy na pardon moi mais mais mais franchement man man du dara tànk bi moo nekk nii Aliou Sow à l'écran oh, man xam nga lan laa xalaat. Mhm. man dama xalaat nit ku ñuul moo soxor. Mhm. man man pour man ah. pour man nit ku ñuul en général. Mhm. en général nit ku ñuul dafa bon. nit ku ñuul. nit ku ñuul laa wax nit ku ñuul dans notre culture. ñun dañu soxor. ñun dañu bon dañu bon quoi. dañu bon parce que lii lii lii lii mënoo ko gis ci dëkku tubaab. lii nii. mënoo ko gis ci dëkku n'est pas possible ku ko gis na ma ko wax. pourtant Aliou Sow même ñag yi nga xam ne dañu nekk fii di def euh, santé. ñoo duñu non culture Sénégal mais non parce que parce que xëy na dinaa la wax dara aussi nee naa man intellectuel damay réfléchir fu nekk. ci lu nekk c'est la civilisation arabo-musulmane qui a été à l'origine de tout ko wax ñi may wax nag am nañ dégg jikko bii la. le monde judéo-chrétien en général yërmande bi lañu am parce que ñàkk yooyu en général ñu ci bari pardon a ah, murit la sadix la te te te te jullit la yàlla rek a xam na dama ne lii ci civilisation judéo-chrétienne bi lii bariwu fa man mii maa wax loolu coxorte bi en général ci dëkku ñu te ci ñuul yii la en Afrique subsaharienne méchanceté bi soxoraane bii nii iñaan bi di togg di seetaan nit ki nga nekk ci hôpital gis yii te mënoo ko faj yéegaloo information bi wax ci li nga ci mën leer na Serigne Touba Mbacké su ma amoon 10 tey ji jox ko ndaw si Iran Ndaw Ndaw Iran Ndaw bii baax na na ñu toog ñu wax ci su ma amoon xaalis bi léegi dinaa ko fi teg Iran Ndaw kii baax na ci bii nii wax ci waxal ak say nit man nag damaa bariwul ay nit ndax euh, duma ma bëgg di leen jege ndax ak li ma tax a jóg mënul nekk ndax dafa am yu may bañ dimbali ñu si dimbali kii Mariam fay maa ngi lay waxaat jàppale leen kii ak ay moroom ñi ñu gisul les gens sont fatigués gis ngeen ki dem xale bu góor boobu dëkk Géejawaay buy dox ak jabaram day wëndeelu day day day roulé est-ce que gis ngeen loolu xale bu góor bi day day da doon liggéey mm-hmm. colonie woon mm-hmm. léegi buy buy dox mm-hmm. day bërëmu di dox waaw loolu war nañ ko seetaan ci dëkk léegi depuis des mi ngi loolu da liggéey di daan dooleem mais man man man vraiment man man man comprendre ma loolu fi bëri lii lii lii kenn lii la ñoom ñoom kooku kooku kooku kenn waru ko seetaan loolu loolu il suffit que gis ko ci mbedd bi man ma nekk autorité gis ko ci mbedd bi gis ko sama quartier fi ma dëkk am ay nekk ci ay conditions pour jàppale ko mën a wax am baat ci nguur kooku di dina faju wala dina wut solution dina toog te est-ce gis ngeen jabar jabaram ja gis ko mhm. gis ngeen jabaram ja ñëpp dañ ko bàyyi jabaram yi tamit dañ koy jaajëf ne ba tey moom itam mi ngi toog di jàppale borom kërama xayri waxtaan bi nii amaana sax dinañ ko continuer continuer mm-hmm. waa parce que du waxtaan boo xamante dafa war a fay mm-hmm. dama lay jaajëfal bu baax xayri ci li nga xamante ne moom nga ñu indi ñu bàyyi la nga daal di tàggatoo rapidement waaw xanaa fat que di am rek tey sax duñu ni dañu am mbégte mhm. parce que am na li nga xam koo gis mhm. sa yaay di ko dund mhm. euh, nga ci nga ciy ànd ak mbégte vraiment hôpital daal seen taxawaay doy na waar wax nañ waxati waxati mais en tout cas cas boo gis boo xoolee Charles waroon na génn waat ma ko mu nekk li nga xamee seen rek état bi ci war a taxaw ba mais population bi dañu war a jógal seen bopp révolté wu nii ñuy taxawee di wax ni lii du am lii du am noonu lañu war opération ci hôpital yi li nga xam noonu la ñu ak ña fa nekk ñoom yan diplôme moo leen fa teg ak ñoom lan jóg parce que ñoom dañu jóg pour rey nit ñi uh-huh. dañoo jóg pour def uh-huh. seetaan di uh-huh. souhaité waat ñëpp rek bonne heureuse année 2020 di ñaan jàmm salaam ci dëkk bi euh, di di di souhaité raa bi tey day fay def mariage ak góor a njaay mi nga xam ne mi ngi préparé benn événement bu rëy en bref noonu foofu lañ koy yemale de toute façon daal ñu ngi nuyu ñëpp di sant ah. ñëpp di ko sant moom aussi ci courage bi mu am ba ñëw fii waa vraiment toog di wax li nga xam ne vraiment mooy amuñu ko moom soxna si di Ami Seck ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu bàyyi la yow itam nga daal di maa ngi sant yàlla bu baax yonent bi tedd ba di leen ñaanal yéen ñi ma invité mhm. ak di ñaanal tamit Charles mi nga xam ne moom waral ma ñëw fii mhm. di wax ni rek mhm. ñi nga xam dañoo nekk si kër yi mel ni man damaa bëgg ñu génn. ñu wane seen bopp parce que ñu dund métti na torop ñu génn. ñun ñëpp. parce que il faut ñu dimbali ñu. Mm-hmm. waaw dañoo sonn daal lii daal loolu laa am lu may wax. Mm-hmm. waaw mën naa bëgg daal ñoom ñëpp ñu génn parce que. ñu bëri ñu kër yi di souffrir comme man. parce que ah. d'accord parce que moom li génn ñoom ñëpp ah. dama ciy dolli parce que numéro bi nga xam ne moom la def ci ci nga xam ne charge moom lay jàllale nga xam ne dañ mm-hmm. mm-hmm. def benn mbooloo takku mm-hmm. te dund lu mel nii tamit mën nañu oote ci numéro boobu boobu nga xamante ni képp koo xam ne daal Euh, yaa ngi dund métti yu ni mel la nga daal di bëgg jàll ci rubrique bi la di mœurs ubbi nañ